ci taxaloon ñoom tam daanu nañ. d'accord ñoom tamit euh, daanu nañ euh, lan mooy euh, problème bi ci diggante xalifa Sall at ki nga xam ne moom mooy Barthélémy Diaz ndax jamono ji gis nañu ne gisatuñu xalifa Sall ci wetu Barthélémy Diaz waaye itam gisatuñu Barthélémy Diaz ci wetu xalifa Sall dafa am problème bu am seen diggante ñoom ñaar wala. non loolu ay reetaan la may def. <laughs> lay defee reetaan. mun na ma def ay reetaan comme mun na ma def ay jooy tamit. Hmm. parce que si manipulation bi rek la bokk. ba tey loolu yëpp ci manipulation manipulation bi semaine passée man j'étais à Kaolack. Mhm. ñuy def tournée tournée bi Khalifa Sall ak Barthélemy Diaz ñoo ànd pendant dix jours mais koo amal problème di nga ànd ak moom dix jours de campagne. mais gisuñu ko ci médias sociaux yi. non waxal yéen gisu leen ko allez sur la page de Khalifa Ababacar Sall allez sur la page de Barthélemy Diaz. da nga ma waroon permettre nag ma jël sama téléphone woon la ko mais peut-être du adéquat ak ci kii bi. mais peut-être waa régie dinañ euh, mën a retrouver image yooyu. pour dernièrement fait tàppe leen Khalifa Sall à Kaolack di ngeen gis les images Khalifa Sall ànd ak euh, Barthélemy Diaz. ñoom ñaar ñu ñu kii ça fait amul seen diggante ñoom amul seen diggante Khalifa Sall ak Barthélemy Diaz samedi ak dimanche la bés doxul seen diggante. kon tax na daal ñii yaakaar mu ñagas nag. Mhm. nañu sawete tëddi. Khalifa Sall ak Barthélemy bi ñuy ki nga xam ne Khalifa Sall dañ ko teg mhm. mu ne duma ko bàyyi moom rek fippu ñu teg ko ci kaso par solidarité. kooku du tay lay bàyyi Khalifa Sall mooy candidat am magam la mooy leader am. taxaw na fu nekk ndax tey aussi tamit Khalifa Sall bu demee ba nekk ci situation yi avec Yewwi Askan Wi c'est grâce à Barthélemy Diaz. loolu ay wax la rek Barthélemy Diaz li mu wax. Mhm. réerewu si ak Khalifa Sall Khalifa Sall li mu wax réerewu si ak Barthélemy Diaz. problème yi am yeewee askan bi dafa waroon am am na on l'assume mais daal ci gàttal Barthélemy ak Khalifa Sall. Mhm. ndox bu suu ndox bu tàng la ak suukar. d'accord ànd naan image yi ñu voilà euh, daal dinañ ñu ko wan donc réeroo euh, donc réeroo amul ci diggante euh, Barthélemy Diaz ak Khalifa Sall xam naa ne defuñu effort bu bari sax pour génnee lii. Mhm. waa léegi problème bi xam nga yow li nga wax nii xam naa fi nga ko jëlee léegi lan moo wundu. yu mel nii gis nga politique nañ ko def dans la dignité mm. politique nañ ko def dans la vérité nañu bàyyi sos ak wax loo xam ne du dëgg loolu day lëndëmal sénégalais yi mais nag nit fii mënoo nax nit ñi mm-hmm. parce que boo loo foo taxaw wax rek sa morom mun na fa taxaw weddi avec des preuves à l'appui mm-hmm. voilà avec à l'appui euh, gis nañu ba tey ñu ngi wax ci mbiru euh, Gloria entre nga xam ne moom mooy benn bokk yaakaar à taxawu euh, Sénégal ndaxte ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Yewwi Askan Wi plutôt waa Pastef ñoom jàpp nañu ne yéen ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy mouvance présidentielle bi réeroo woo leen ndax gis nañu euh, li nga xam ne xewoon na ci dialogue bi waaye itam gis nañu lu bëri loo xam ne rek jàpp nañu ne ñoom Gloria bi nga xam ne le président de la République waaye itam waa benn Bokk Yaakaar ñu doon ko wax que ne mi ngi ñëw ñoom jàpp nañu ne waa taxawu Sénégal la. xam nga. lépp ci manipulation la ba tey wala. non loolu loolu loolu loolu sax preuve bi dafa am yaa ngi fàttaliku Gloria kañ lañ ko doon wax. Gloria yàgg xam nga boobu dafa fekkoon soow amoon. Mm-hmm. ñu ne soow bi Idrissa Seck la Idrissa Seck waaw léegi diggante mburoog soow bi Gloria mi ngi ñëw. waaw Gloria waaw si laa ñëw. Mm-hmm. waaw xam nga sponsor woon nañ mburoog soow bi ba mu neex. Mm-hmm. def si suukar di xaar Gloria. Gloria. ba tay jii nii gloria bi dugul de. Mhm. te mburoog soow bi sax yàqu na ba ñu sànni ko. waaw sànni nañ ko sànni nañ ko mburoog gloria la léegi. waaw man ba tey nañu mhm. continuer di wax mburoog gloria. Mhm. xam nga kañ laay d'accord na ñun ñooy gloria. barki démb defuñu gouvernement. dem nga ci kenn ku dégg ta ku bokk taxaw. xanaa ñàkkuñu fayda nag dem bay nekk gloria di jàppale Macky Sall te duñ dugg ci gouvernement bi. ah mais gouvernement bi di ñëwaat bay dàq. 2024 gouvernement bi di ñëw suba yow xam nga kan moo ko jiite dañuy dañuy waajal pour gouvernement. yow ñun ñu bëgg réew mi ñoom ñu bëgg réew mi ñun ñuy def gloria ñun ñàkkeew ñu noonu nag xam-xam politique et puis da ngeen di fàtte ne ñun Benno Bokk Yaakaar si ñu fal Macky Sall si lañ bokk ñun rek ñoo bàyyi pouvoir dellu opposition xam nga da ngay wax transhumance mooy lan. Mhm. ki nga xam ne ku ñëw mu ànd ak yow. ñun rek nga gis ñu ànd ak nit ba mu falu ñu ne ko waaw ok fal nañ la ñun ñi ngi dem utiwaat. dellu dans l' opposition. Mhm. mu jaral ñu ñu dàq ñu suñu kër. parti socialiste. Mhm. léegi nag ñàkk fayda weesuwul nit kooku nga bàyyi ko mu lekk nguuram ba mu des quatre mois ngay nekk mburoog Gloria. ñàkkeewul noonu xam-xam suñu bëggoon nekk Gloria duñ dugg kaso koo xam ne dafa ne bàyyil sa ambition. mën na nekk stratégie. dama ne ku bëggul nekk Gloria ku buggoon bañ a nekk Gloria. Mhm. doo dugg kaso Khalifa Sall bi muy dugg kaso. bu nangoon ne du candidat day day day day dañ ko tëj. dañ ko ba pare dañ ko dugal ci gouvernement bi mu ne leen defuma ko ñu tëj ko kaso mu gañe mairie Dakar ñu foqati ko. mu gañe nekk député ñu foqati ko kooku mooy Gloria nañu wuti Gloria feneen Gloria kay nañ ko wax léegi mooy ñi nga xam ne dañuy xañ fexe. ba jël postu yeewi askan bi. waa Benno Bokk Yaakaar di ko bénéficier wu xam nga ñun ville de Dakar kenn newul dañ jël poste jox leen. oui parce que jamono ji moom waa Benno Bokk Yaakaar mën nañ ne daanagum nañ leen benn bal ci dara. kan la ñu daan yeewi askan bi. opposition kan moo tax ñu daan leen. est-ce que du yéen ñëpp. opposition bi tout entière mu ñoom la ñuy jël. teg leen dugal leen benn bal mais aussi. gis nga booy àtte boo nekkoon parce que a def li waral. ñu ñu ñu gañe leen boo doon juge tey. Mhm. xam nga olof yi dañu fii xamuñu. ku tooñ ku fayu lañu xam dañu mm. xool affaire bi fan la commencé ki jël suñu tur dugal ko ci liste bi ba pare. Mm-hmm. nangu suñu ay poste utiliser suñu suñu quotient. Mm-hmm. pour am ko kooku moo war a yeewee askan bi du ñun parce que ñun on est resté digne dans l'épreuve. mais mënoon ngeen continuer resté digne rek comme que da ngeen ne objectif bi mooy que ne euh, Sénégal sénégalais yi waaye askan wi aussi ñi nga xam ne ñoo leen di jox seen baat ñoom ñoo leen di dégg aussi tamit mën Euh, am confiance ci wàllum politique waaye itam ci yéen ñi nga xam ne yéen ay politiciens yi. xam nga ñun nan la ñu diñee. parce que yéen seen bu ngeen di xeex seen biir est-ce que askan wi aussi itam dinañ am confiance ci yéen. waaw xeex du ñàkk xeex yàgg na xeex dina am tay dina amaat am na mais dañoo dañuy dem ci. élection présidentielle lu tax ma ne ñun dañu diñ. Mhm. jour boobu bi ñu dindee ci bureau bi ñu démissionné. Mhm. xam nga bureau boobu dañ ko voté ñun toog nañ voté ko te nekkuñu ci biro bi. c'est ça la dignité ñi diñul mooy ñi nga xam ne bi ñu toogee assemblée ñu ne woon Khalifa fépp dafa war a nekk candidat Karim Wade dafa war a nekk candidat ñu teg loi bu leen di voté ñu dem ba ci biir ñu génn salle bi ñun ñu salle bi de. te keroog jekkoon nañu génn salle bi de mais ñu salle bi dañu toog voté ko loolu mooy dignité. loolu mooy dignité ñun on est on a toujours été digne et on sera toujours digne gis nga opposition bi ñu nekk actuellement. à part PDS bi nga xam ne ñoom la ñu gagné en 2012. 2012 sous l'ère Macky Sall on a été les premiers à être opposants ñun ñoo ñëkk a taxaw opposé wu Macky Sall ku ñëw nag fii nga ñu fekk. Mhm. ku dem bàyyi ñu fi. am na ñoo xam ne ñu ngi woon si Macky Sall mer ngeen bu dem ñun bi ñu génnee ba léegi delluwaatuñu dugg nañ kaso jël nañ suñu mandat bu ndoxataal nañ ñu te ñu ngi fi ñu nekkoon ba tey sénégalais yi nag loolu lañuy ñuy nañu juger loolu il faut juger les gens sur leur comportement am na benn politicien bu doon laajte couleur boobu sax moo gën a bëri si sa chemise bi nga sol. Mm-hmm. chemise bu rafet bu bi nga sol nii. Mm-hmm. kooku ñun ñëpp a jëloon suñu ay jox ko ko. kan la. bugguma tur bugguma tooñ. ah di wax tur moom. ndax couleur yi nekk sama chemise bi daa bëri. <laughs> mais kooku. ñun ñëpp couleur yi nekk sama chemise bi daa bëri. ñun ñëpp wax ban couleur ñun ñëpp a cotisé woon jox ko. waaw wax ñu la ñu mën a. mais bi ñu demee ba ci biir. élection yi passé. mu ngay daw question ah, dafa jël dem non li may wax moo ëpp solo couleur bi. am na koo xam ne ñun ñëpp dañuy jël suñuy voix jox. Mm-hmm. mu dem élection jël deuxième. Mm-hmm. ah xam nga duñu doy na borom xel. ñu dem élection bi la. même pas deux jours. Mm-hmm. mu jël suñu voix yëpp dem jaay ko dem dugg ci nguur bi ñun def ñu loolu. xam nga loolu c'est un fait qui soo ko waxee dañ ciy teg baaraam. Mm-hmm. mais di wax ay goloria ay mburoog soow ay ñàkk fayda yooyu di ko jéem a tuumaal pour jéem ñu yàqal c'est peine perdue Khalifa Sall est un homme digne. Mm-hmm. Khalifa Sall est politicien vraiment ki ki qui a de et de la morale. nit ku yaru la xam nga coow li li muy bare bare yëpp déggoo ko mu saaga du xaste. Mm-hmm. du wax lu ñaaw te boo dee wax aussi. li ma war a wax da koy wax heure def jot mu def c'est ça l'important surtout voilà. surtout euh, surtout euh, tey jii nii naka nga gisee euh, gouvernement Sall bu bees bi. gouvernement Macky Sall bi man dama jàpp ne euh, ñoom dañ ñu yàpp. ñan ñoo leen yàpp ñu wax Macky Sall Sall. d'accord yàpp nañ ñu yàpp nañu peuple sénégalais. ci naka. parce que Macky Sall bu nee moom mooy président ba tey. ñu nangul ko ko. mu ne moom dootul candidat loolu dafa nekk un fait inédit ça veut dire pour la première fois de l'histoire politique un président sortant n'est pas candidat à sa propre succession. fi ñu ko doon xaar nag mooy mu organiser des élections libres transparentes et démocratiques. bàyyi ñëpp bokk nag ñi war a bokk bañ a kale ñenn ñi. Mhm. non seulement deful loolu. mais moom ki nga xam ne moom la bëgg mu nekk remplacer ko mais na ko yemale ñëpp tey li ñu doon won ne moom yemale na ko ak ñëpp mooy que poste su premier ministre boobu Amadou Ba yor. mu jël ko jox ko keneen koo xam ne quatre mois yooyu dina nekk si leneen. mais boo jëlee Amadou Ba bàyyi ko ci poste boobu. mu am ñu mu war a jonganteel di utiliser les moyens de l' état. de l' di utiliser son statut de premier ministre. ça veut dire que déjà le jeu est faussé est faussé au départ gouvernement bi nag man jàppuma gouvernement lii man directoire de campagne laa ko jàppee. Mhm. ñi nga xam ne ñoom la ñu yaakaar lañu jël renforcer leen. boo xoolee ñenn ñi jeu de chaise musicale la da ngay jëlee fii teg fële. teg fële. Mhm. comprendre ñi nga xam ne nangu ñu woon plié wu nga dàq leen xool ñeneen ñoo jël. boo jëlee maam boo jaawoo fii créer beneen nit. ci goxam pour mu ñëw contrecarrer ko mhm. mais yooyu buñ ko xoolee dañu war a xam ne loolu c'est peine perdue nga ñëw si dëkk noot leen pendant douze ans ñu sonn amuñ lu ñu lekk amuñ lu ñu naan nga xëy benn jour falal leen benn ministre même bu dee hyper ministre kooku mënul dugg si kër yëpp di joxe dépense mhm. les problème restent entiers bu dee loolu lañu yaakaar ne mooy mooy retourner la situation politique mhm. il se trompe beneen bi ñëpp ñu ngi wax Macky Sall dafa war a organiser élection yu libre mhm. mais nan nga mën a jëlee ministère de l' intérieur benn Antoine Diome mhm. bi nga xam ne sax ñu ngi dute ne ñun am na carte APR wala amu ko parce que du ñu sos tamit parce que man de mosuma ko gis mu taxaw taxawaayu politique. kooku yor élection yi Antoine Félix. Félix Diome mhm. moom moo yor élection yi ministère bi ñu koy ñuy jooy loolu. nga dem jël Sidiki Kaba bi nga xam ne moom dafa trempé politiquement c'est un acteur politique mm-hmm. affilié à un parti politique mm-hmm. nga jël ko teg ko ministère de l'intérieur ça veut dire ko loolu ça n'augure rien de bon dañ jàpp ne loolu dañ ko def pour pour salfaañe élection yi pour sàcc élection yi parce que bu doon lu leer lañu bëgg mais mun nañ def comme Macky Sall n'a pas le droit de faire moins que Diouf et Wade parce que ñooñu bi ñu ci tolloo Diouf moo ne woon jàkk jàng ni ko mu neex nga nodd Ablaye Wade il avait créé un ministère chargé des élections teg fa une personnalité neutre loolu ñu ngi leen ko woy boobu ñu ngi leen topp ba tey mais li dafa ñaaw ñu dem ba élection présidentielle jot nga dem jël koo xam ne politicien la ah, vraiment am parti carte parti jox ko pour mu organiser élection yi donc ñun gouvernement bi amuñu si benn yaakaar gouvernement boo xam ne. quatre mois yi di ñëw sénégalais yi bu yeboo ñu xam ne ñu fi teg talu ñu leen. boo xoolee Amadou Ba ñu ngi wër commencé wër. ci tam pré campagne. ban oto lay yóbbu. gouvernement bi. ban carburant lay yóbbu. xaalis yu mu fa yóbbu fu mu ko jëlee. et pourtant mi mi waxoon na ko fi. waaw kenn dafa war a démissionner ci poste. mais loolu mooy yoon premier ministre dafa war a démissionner. Mm-hmm. et puis stratégiquement. nit ki bu dee yow lu lu jub rek moo la tax a jóg. Mm-hmm. nga ne yow yaay premier ministre Sénégal moment bi métti na ñu ngi menacé ne dañuy yokk mburu bi. surtout. yi ñu ngi jooy si affaire affaire courant bi. courant bi woyofal. Ah, xale yaa ngi dematuñu par cent da ngay gis benn avion. bu def mm-hmm. deux cent personnes ñëpp Nicaragua. daw même dans l'urgence nga am loo war a def yow nga teg fi ñoo xam ne da lay demal ci ministère yi. Mm-hmm. fi mu ne nii ministère yi kenn nekku fa. ñëpp ñu ngi daw di uti ay parrain eh léegi kan mooy perte dans tout ça c' est le peuple sénégalais donc ce gouvernement c' est le gouvernement du désespoir mm. c' est gouvernement c' est un gouvernement de de politique politicienne c' est un à la limite un c' directoire de campagne